salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision MKTV di télévision bu mag bi nekk ci jumaay Touba ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di leen nuyu ci barab bu tedd bii ñu nekk muy jumaay Touba tey di dëppoo ak alarba euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2023 dëppoo itam ak fukki fan ak benn. ci weeru gàmmu gi ñu jëm ci guddi gi nga xam ne mooy guddi fukk ak ñaar gi su ñu ko waxee nag wax barab bu tedd bi danañu fàttaliku liggéey bu mag bi nga xam ne moom la daayira muxaddamatul xidma ànd ak raw rawdu rayaaxiin sëriñ bi jox leen ndigal ngir ñu taxaw guddi gàmmu gi fii ñi ngi ci waajtaay wi nag toll ci mise en place bi maanaam euh, waajtaay yu mujj yi waajtaay yu mujj yooyu nag commission yi ko seq muy commission organisation ak commission communication ak commission bi nga xamante ni moo yor lépp ci lu jëm ci wàllu social ak logistique ak commission culturelle te am ci ay taxawaay yu mag a mag a mag xam ngeen ne bi ñu jubee gàmmu gi euh, am na euh, ndaje mu mag moo xamante ni amaloon nañ ko ngir waajal ko seq waa daayira Rawdu Rayaahiin seq ko ak daayira Muxaddamatul Xidma ngir waajtaay yi ak lépp lu ci aju euh, ren itam ni ñu ko defee woon daaw nekk ci jamonoy nawet xam ngeen ne euh, daaw bu ñu fàttalikoo taw bu bari amoon na ba tax na ren daayira Muxaddamatul Xidma jël na ay waajtaay gis ngeen base bu mucc ayib bi nga xamante ni am nañ ko fi ci ndimbalul yenn mbokki taalibe itam boo xamante ni dana tax gàmm gi mën a am ni mu waree te benn jafe-jafe du am base boobu nag lépp lu ci aju ci wàllu euh, logistique lu jëm ci wàllu sonorisation gis ngeen installation rajo yi noonu waaye itam lu jëm ci wàllu communication tam préparé nañ ay écran géant yoo xamante ni fu waay a tollu ci biir jumaa ji ak li ko wër dana mën a dund gàmm gi en live dara du ko ci ump kuréel yi nga xamante ni itam moo jëm ci kuréeli xasida itam waa commission culturelle waajal nañ ko ba mbooleem kuréel yi nga xamante ni muy ñetti kuréel yooyu kuréelu jazbul xurub kuréelu kuréelu mawaahibu naafi ak kuréelu am amda yooyu yëpp ñoom ñi nga ca waajtaaya ba nga xamante ni ñoom ñoo fas yéenee fanaane gàmm gi ànd ko ak barzan bi nga xamante ni moom la ñuy jàng ci guddi gi di ko defee ni ko sëriñ bi daan defee waaye itam lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu euh, conférence bi itam loolu waa commission culturel waajal nañ ko ren waxoon nañ ko ñu ngi war a waxtaanee yonent bi salaay salaam ni mu daan jëflanteeg ak ñi mu la ay xalaat. Euh, comme niñ ko defee woon daaw yonent bi ak ay saxaabaam yonent bi ak ay soxnaam aw dundinam ci biir soxnaam kon tem boobu moom lañ jël ren incha allah. gis ngeen itam waa commission organisation lépp lu am lu aju ci wàllu xéewal yi ndax xam ngeen gàmmu gi ñaari pàcc la muy bernde roox yi ak bernde bi nga xamante ni moo jëm ci jëmm yi waaye ñoom itam lépp lu jëm ci wàllu bernde yi ña nga ca gis ngeen fa tabaarakallaahu noonu ñu waajalee euh, lu jëm ci beñe yeeg euh, café yeeg meew yi waaye itam gis ngeen ko xéewal yi nga xamante ni mm, moom la jëm ci gàmm gi bi sukkarin aw la xam yi ni ñu ko waxee gis ngeen gileem yeeg nag yeeg ba ci waañ wi ni ñu koy waajale loolu itam waa organisation ñoom ña nga ca Euh, macha allah gis ngeen ko noonu waaye itam am na lu am solo loo xamante ni lancé woon nañ ko ndax daaw ci gàmm gi dafa tawoon ndox mu bari ba tax mu kat yu baree bari tooyoon yàqu ren nag ñu lancé woon benn appel boo xamante ni mm, dajale ay basang ngir mën koo lal ci barab bi nga xamante ni moom la ñuy gàmm ba mbokki taliba yu bari wuy si nañ ci macha allah gis ngeen ko euh, basang yi mi ngi noonu. mu dajale ci lu mat ay lu lu jege téeméeri basang ak juróom fukk waaye ba léegi nit ñi ñu ngi wéy di joxe ndax itam jumaa ji daf koy soxla même bu dul gàmm événement yi yi nga xamante ni dafiy xew dañuy soxla basang yi te xam nañ ne mu kay di euh, ñam gu waru cee tuuru waaye tam ndox itam bu ko laalee mën naa indi jafe-jafe kon daal ñi ngi ci loolu communication ñoom ñi ngi ci waa commission sociale tam ñi ngi doxal ay liggéey bu am solo ba mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo war a dugal seen loxo ci gàmm gi ñoom ñëpp ñu ngi ko ciy dugal ci tënk ci mise en place bi incha allah ci kanam tuuti dana ñëw ak yéen nag ci bala ñoo dugg ci gàmm gi nag ci plateau spécial yoo xamante ni waajal nañ leen ko ak suñu ay invité ci biir gàmm gi loo xamante ni dañoo war a tënk nag doxinu gàmm gi incha allah kon ñi ngi taxawlu foofu ba ci kanam si yéen téléspectateur u MK TV